Euh, le con euh, la cour suprême mom dafa daal di li nga que nekk euh, disqualifié wala comme ça dafa daal di li nga xam nekk moo outrepassé wala comme dafa daal di li nga xam que moo violé violé propre jurisprudence bi nga xam tam mom moom ko fi en place ndax suñuy fàttaliku si dossier li nga xam que moo di Couette moom ki nga xam nekk cour suprême dafa bañoon ni du daal di li nga xam nekk jël décision bi yóbbu ko fa nga xam tam it tribunal mo koy daal di parce que fi dafa daal di nekk si nga xam que en matière électorale su jëfandikoo si n'a nga que docteur Yaya Niang mu ni la Cour suprême avait fermement soutenu euh, qu'en matière électorale elle ne renvoie pas que ni Cour suprême waxoon carrément que ni euh, su nekkee li nga xam nekk élection ak euh, waluk hmm, électoral fi Sénégal du ko daal di renvoyer ben yoon en tout cas si kaaw li nga xam que moo di Couette ki nga xam nekk moo Cour suprême jàpp nañ du daal di renvoyer boobu di nga xam que dossier bi par nak

Euh, si même cour suprême boobu nag euh, ki waral coow di kena xamné que mu la juge euh, Aïssata Ba la juge Aïssata Ba mom mo dadi daal di incompétent le fekkoon que ñu bëggoon renvoyer li nga xamné que moo avocat yu Karim Wade bi requête bi nga xam tam itam déposé woon ko allant dans sens tay même Aïssata Ba boo ñëwaat tay tenir li nga xamné que moo actualité bi fi ci Sénégal mu nek lo xam tam itam ñi si daal demani donc Ousmane Sonko inscription de leader de l'ex-Pastef sur les listes électorales le rabat d'arrêt la dernière carte d'Ousmane Sonko mu ni kon mi ngi joué dernière carte am fa nga xam ne itam moo di sudwaanu ko Cour suprême ñi daal di xam boobu de li nga xam nekk moo di rabat dinañ ko daal di li nga xam waaw wala

si mbir euh, bu nu mel leneen euh, mooy li nga xam euh, les avocats d'Ousmane Sonko a dit ngi daal di exiger mu daal di gaaw que décision le plus vite possible madame ñu daal di gaaw kase de li nga décision waaye tam, ñu daal di koy li nga xam ne moo di yëkkiwaat man kon laas li nga ultimatum bu une semaine ndaxte li nga xam que moo parrainage bi nag léegi mu jeex itam ñoom jàpp neen Ousmane Sonko mooy danoon seen ko candidat si atupa 2024 man di kon nag ñoom ginnaaw déposé benn que rabat derrière nak ñi ngi daal sakku euh, si nga que modi di que jugement euh, fast track en tout cas ku nek rek da nga ko daal di que mu nek lo itam c'est important d'assurer si war a mun xel bu baax a baax baax baax baax alors ñu daal dem ci ki nga xam que modi assumi Assimi assumi Assimi nak mom moom euh, moo dalal di que li nga xam que modi délégation Pastef fa nga xam itam. Euh, moo di sa diwaanu euh, justement euh, sa dëkkam ma ne kon ki nga xam nekk moo di Assimi nag jébbal na benn kër li nga xam nekk moo di message for ñi xam ni itam ñoo di waa Pastef ma ne kon nag si diwaanu Mali nag moom ki nga xam nekk moo di Assimi Goïta dalal na li nga xam nekk moo di délégation Pastef ki nga xam nekk moo di Assimi nag ma jàpp na ni jamono ji mi ngi daal di li nga xam ne rek moo di.

Euh, modi se sa diwaanuk euh, Mali alors euh, Madiaba Diagne aussi moom itam yëngal na li nga xam nekk chronique yi te japp nañ ki nga xam modi moo di fay euh, Faye mënta doon candidat si atub 2024 Madiaba dem sax plus loin mu dal di ni la candidature de Bassirou Diomaye fay ne va pas prospérer même Ousmane Sonko le sait mu dal di ni ki nga xam nekk modi candidature Bassirou Diomaye Faye mënta dem même ki nga xam nekk modi Ousmane Sonko xam ko ma ni kon nag euh, mu nekk lu euh, doy waax alors démb na xam ne itam xew na si wàllu ko Pikine ñetti ñi na xam ni itam teg leen loxo mu di leen daal leen bàyyi euh, fana nga xam ni itam mooy zaanu ko quartier général Bassirou Diomaye Faye fa nga xam ni itam mooy zaanu ko nag tegoon nañ leen loxo mais à la dernière bàyyi nañ leen descente inopinée maanaam descente boo xam ni itam dafa daal di bette lool police bu Pikine daal di koy wàcc si li nga xam ne moo di quartier général.

li ñu ci doon si waxtu euh, jeex na cat na ngërëm qui est di képp ki nga équipe technique bi mbokk téléspectateurs yi euh, seen émission Minute Info daal di buux jox di merci beaucoup aussi euh, à l'ensemble de nos téléspectateurs merci beaucoup aussi à notre juriste Abdou pour éclaircissement yi nga xam ni itam indi na allant dans ce sens bonne suite de nos programmes et passez des excellents moments sur les antennes de Sénégal 5 TVA bon après-midi à tous et à tous. alors euh, di leen jéglu bu baax a baax a baax donc foofu la ñuy daal di jamono nii chers téléspectateurs yu euh, li nga xam nekk mooy Sénégal 5 TV alors ñu ngi dem ba suba incha allah si euh, beneen numéro ak li nga xam nekk moo di beneen kan daal war a ñëw si actualité bi faram-fàcce ko si nu mu gën a yaato fii ak boobu ma leen daal di ñaanal kenn la jàmm itam di ko saa di sàkku si yéen suñu borom bi borom jàmm ku mu jàmm mën am jàmm yal na yàlla defal jàmm buural ko si askan wi Sénégal jaa ngeen jëf bon après bon après-midi à tous et à allah